classe yi parce que informatique moo nu manqué ci salle de classe yi yàlla dogal la ñëw ngeen tey fekkee ngeen cérémonie bi may nañu ko mais sunu cri de cœur lu ci ëpp mooy les salles de classe gis ngeen ko noo ko gisandoo ci du manque des salle de classe loolu nag nu wax ko ca kaw mooy tax am salle de salle am partenaires yoo xam ne noonu lay jàppale pour ñu defoon ay salle de classe parce que loolu rek mooy sunu cri parce que moom lañuy jooy pour ku ñu jàppale dimbaluñu ci partenaires yi pour mun nu ko jox dëgg yàlla waaw waaw parce que actuellement am na ñu xam ne ba tey amagu fu leen def te commencé na inscription yi école ubbi na mais ni ngi ñaan partenaires yi ñu ci mën a jàpp rek ñu jàppaleen pour ñu am fii ay salle de classe fii au niveau du lycée Maam Abdou Aziz Dabakh ah. loolu daal mooy sunu problème te ni ngi koy ñaan te ni ngi remercier itam presse bi baax a baax ndax fu nu nekk rek sëriñ bu nu mun am yéen a ngi ñëw di nu taxaw di nu interviewer nuy wax di jooy su li xam ne moom lay mun moonu metti pour ngeen jottali ko tam ah wax dëgg yàlla du leen ciy gërëm ñu nuy ñaan yàlla nag ngeen jottali ko ah mun a àgg fi boor a àgg ñu nu mun a jàppale def fi ay de classe ci lycée bi loolu daal maa ngi leen di gërëm merci beaucoup.